demam nga ump na mindéef te um na bopp kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom bar sàq bi liñ ci e, wumb nag bari na lool objectif yi bari na lool ci suñ xalaatagoon liñ xalaatuñ comité bi liñ ci réunion yi def ak waxtaan bu pare ba am ñu tëral waaye nag xalaat yu yu yu yu kii la rek yuñ yuñ tàmbalee rek waaye ndax xalaat yi koy jëmmal yëpp nag bañ mën a am courage continuer di ko def mooy yéen lu ngeen di ciy wax ba pare loolu moo taxoon tey jii ñu jóg ñëw ci yow eh, ci ndigal sëñ Ahmadul Maxtaar eh, buñ paree nag bàyyi la yow nga wax na noo ko bëggee ak noo ko xalaatee waaw ah, yaakaar naa loolu daal mooy objectif bi ak li nu fi li nu fi indi eh, danaa jox bas ñaar nag moom leeralal la biñ dalee waxtaan ak yéeg lépp liñ liñ liñ tëralagul ak niñ ko bëgg a defee yu mel noonu daal jërëjëf Mbacke. solo si rek moo di yëggu sëñ bi yëg ne bi sëñ bi ñibbisee ci dëkkam bi mu gënoon a bëgg te suñ boroom natt ko ba dëkku fii ni mu fi bëggoon a dëkke ak ñibbiseem fii nag doonoon loo xam ne yàgg na koo waajal yàggoon na ko itam ni sër dénkaane woon na ko itam ndax ba mu ne tukki ba sax daana wax ne ilaahi ilaa tuuba ya xut nii wa salliman wa jut bimtinaanin sàmm wal tuumini tirba waxaat ne it ne ijaal rujuwaay ilaa xaw mi saadatana wal teg fi naa yow ma jamil xalqi niiraana waxaat ne it ne yassir rujuwaay li tuuba wax mi nii waxi nii adal wara wal tayib bal tutib lii sama iskaana yooyu yëpp day wane rek ne sëñ bi ku bëggoon a dëkk ci dëkk bi la ku fi bëggoon a dellu si la dellusi si gi itam nag bu ñu seetee ci at yi nga xam ne ci la sëñ bi daan bind ak weer yi nga xam ne ci la daan bind muy weeri xamariye yi ci atum gàddaay gi buñ ko seetee mu ngi fi jóge woon ci wam wamsasin te ci màggal gi ñu jëm mooy tolloog wamtasin muy téeméeri at yu mat loolu nag doon loo xam ne ginnaaw bu sëñ bi liggéeyee liggéeyam bu rëy bi mu liggéey dafay bàyyi njaboot bàyyi fii itam ay sumb ak i naal bàyyee ko njaboot gi ñu bëgg nag sëñ bi Ahmadou Mokhtar gis ne jaadu nañu wone sëñ bi li mu liggéey ak ñi mu defar bi mu fi jógee ñooñu taxawuñ yaafu suñ ba liggéey nañ ci téeméeri at bi ci domaine yu bari yu wuute yoo xam ne bu ci nekk sëñ bi daa wax ne nañ ko fësal muy ci wàllu xam-xam mu ci wàllu économie mu ci wàllu social mu ci wàllu environnement ak domaine yu baree baree bari yu wute ak ak dox gi waa këram dox ci benn li jullit ñi li la ci Cheikh Mamadou Moussa ba ci sëñ Mountakha mi ku ci nekk boo fi bi nga ñëwee ak ñi nga xam ne sax duñu ay xalifa kenn ku nekk def na kemtalaayal kàttanam ngir yi ñu tudd lenn lu nekk mu def ca loo xam ne lu lu ñu mën a wane la mu gis nag ne loolu dana xat ci bisu màggal gi rek kon nañ ko tàmbalee ndakaaru ca Masalik ci le treize wala le douze ubbee ko fa def fa ay waxtaan ci sëriñ bi ak xam-xam gannaaw gannaaw maanaam euh, maanaam euh, yoonu murit ak xam-xam gannaaw sëriñ bi téeméeri at yi li fi yoonu murit liggéey ci wàllu xam-xam euh, buñ fa jógee itam le quinze ci weer wi ñu jëm muy juillet ba tey ñu dem Louga moom it waxtaan fa ci yoonu murit bi fi sëñ bi jógeeg léegi téeméeri at yi li ñu fi def ci benn la jullit ñi bu fa jógee itam ñu tëjee ko njaareem ci ñaar fukki fan ci mois de juillet waxtaan fa nag ci xutbatu wam sasin maanaam dénkaane bi sëñ bi mujj dénkaane ak fukki at ak juróom yi mu nekk njaareem ak waaj gi ñu ko waajal indil ko ndax loolu tamit daa war a doon loo xam ne lu ñu lu ñu gën a fésal la ci ñëw sëñ bi ci ci dëkk bi loolu nag sëñ bi waxoon ne nañu ñëw gannaaw bu mu ci amee ndigalul sëriñ taxa ndax dene woon du yëkkati dara te demul ci sëriñ bi ba wax ko dem na ci sëriñ bi ba wax ko yónnee na fa sëriñ bi itam xamal na ko ne loolu fas na ko yéene ànd ànd ak moom loolu moo taxoon ñu ñëw fi ngir leeral la ne fii lañ ci toll commission yi nga xam ne itam mooy taxawu liggéey bi ci wàllu communication euh, sëriñ bi ni ñu ko waxee sëriñ Cheikh Aziz mii moom lañ jiital ci coordination bi mu coordonné lépp loo xam ne moo jëm ci liggéey bi ñu ànd ko itam nag ak boroom xam-xam yoon wi yëpp rek nag maanaam sëñ Bakk Abdourahman ñoom ak sëñ ñëpp daal ñi nga xam ne gis nañ ne euh, man man nañ mën nañoo tax li ñu li sëriñ bi bëgg am ndax lu ñu murid yëpp bokk la ñooñ ñëpp sëñ bi dafa wax ne nañ leen di boole ci liggéey bi ba ñoom ñëpp bokk nañ ci ñii ñu ngi ci commission communication ñii ñu ngi ci commission euh, culturelle ñii ñu ngi ci commission relation kon loolu mooy li nga xam ne ci tënk mooy li sëriñ bi waxoon ne buñ ñëwee nañ ko leeral bu ko defee itam déglu leen ci xalaat yi ngeen ci am ak euh, ni ngeen jàpp ne suñ ko ne defee euh, dana gën a baax ndax lépp rek wane sëñ bi la waaye wane njabootam ci ne bi sëñ bi liggéeyee lim liggéey te bàyyi leen fii itam taxaw di suñu gannaaw ndax lu ci nekk liggéey nañ ci loo xam ne manees na ko wone wan àdduna xamal leen ni lii la ci ak njabootam def loolu nag du aju ci Cheikh Moustapha rek waaye sëriñ Fallou ak sëriñ Abdoul Ahad ak sëriñ Abdoul Khadir ak sëriñ Saliou ak Cheikh Mouhamadoul Amine ak sëñ Sidi Mokhtar ak ba ci sëñ Mountakha yi ak yeneen njaboot yi nga xam ne yëpp ku ci nekk am na loo participer ci liggéeyu sëñ bi ci wàllu xam-xam wala wàllu économie lu ci nekk ñu wane ko loolu daal moo doon moo doon ñoo ngi gërëm baax asalaamaaleykum wa di tàmbale siyaar bi nag ci Cheikh Mouhamadou mi nga xam ne moo fi sëriñ mm-hmm. di ko ñaan mu yàgg fi loolu te ànd gër mm-hmm. ba mot li mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ def suñ boom lu ne ak waxtoo jot mm-hmm. ndax ñoom ñaar ñi fi nekk tey di Cheikh Mouhamadou Mountakha nekkal Serigne Touba mm-hmm. ak Serigne Ahmadou Mokhtar yàlla def ab diggante ci seen diggante ñoom ñaar mm-hmm. loo xam ne xam naa ci lu mm-hmm. maa ngi fàttaliku bi fi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di bàyyi ko Cheikh Mouhamadou Mountakha mi te boo si Serigne Sidi Mokhtar day doo doon xarit Serigne Touba mu ne mu ay xalaat yu amoon ci yoon wi ne daf koy waxee am na ci loo xam ne sax sama mbir ca la kon dama ko kon seen diggante du tey hmm. si Axma itam jox ko cër lool jox hmm. def ko kilifa hmm. sëriñ bi fonk lool ndax seen diggante diggante Cheikh Maodo Moustapha ak Cheikh Maodo Bachir sëriñ Tuubaa leen boole woon jël seen ñaari mbubb yi euh, takk ko laxas ko ne boole na leen kon ànd bu lu yàgg la waaye leen yóbbante sëriñ bi ak cant ak ngërëm rek ci xaar bu rëy bi ndax lii dëgg si suñu Ahmad day jëwriñ ji waaye yoon yëpp la mhm. li mu ci defee yoon muur yëpp la ko defal mhm. xam gi mu ko xamee noonu moo tax ndax moom du yëkkati dara te laaj ci suñu mhm. waaye lii nag rawatina ci ndax fekkoon na lu kiimaane am ci ndax ci màggal Tuubaa gi xalaatoon nañ eh, jëmbal ci lu mel noonu bi ma déggee lii nag ma kon daanaka lañ ci waroon def atab dañu bàyyi yéen lii ngeen def yóbbaale ko ndax ñoo ñoo jege te la ndax euh, sëriñ bi bi ñibbisee Touba ba nga ren la ci téeméeri at te xarnu ñëpp xam nañ li muy firi inna allaha yabasu li hasihi l umma ala rasi kulli miati sanatin man yujaddidu laha dinaha kon loolu mu gën a firndeel li ñu bari daa fanaan suñ mun taxaa mu jëddi kon tawfeex la ci lii mu fekkewaat beneen tawfeex feeñaat ci it mooy bis bi ñuy màggal tey mooy ñibbi si sëriñ bi mhm. euh, Cheikh Mahamadou Mountakha bi mu nekkee sëriñ Touba mhm. màggal goo ko fi jëkk fekk mhm. it yéene jure jëm ci am sax mu ne su ko wax ci télé waaye man la ci jëkk wax ne ba noppi teg ma ca teg ca ne ma ci sax ndimbal noonu la ma ko wax sama positif bopp ak sama yëgeegu bopp te gis ngeen ni mu koy dundalee bu day bàyyi ko këram ak lu mu xat-xat mm-hmm. ñëw fanaan si ci kër Sëriñ Tuubaa yi mm-hmm. danaa wax naan dañuy day dem jaarim waajale ko fa sax mm-hmm. ba koy man ñëw gunge si sëriñ bi kon daanaka mooy lii ngeen defaate kon loolu mbir la mu am solo moo xam ne mu mat di fàttaliku la fàttaliku jimmi sëriñ bi ci boppam ndax sëriñ bi moom mooy suñ lépp suñ dund gépp sëriñ bi la lépp itam mooñu ñu ko fàggul doonuñ dara ci suñ bopp dëkk bu toll nii itam mhm. ñu xool fi mu toll tey mhm. nga xam ne dañ daa wax bu jëkk ne mhm. ginnaaw bu capital bi jàllee Touba fépp waaye ren mu tolloog ñee Touba mooy dëkk bi ëpp ci Sénégal te ba fi sëñ bi di ñëw booba motu sa fukk kër ci téeméer at kon loolu rek doy na njàngat lu rëy ñu war see jàngee nag dañ ñaanoog Serigne Touba moo tax dëkk bi ak si du loolu kenn def loolu moom ci moom mi nga xam ne moo fàggu dëkk bi ba muy ba mat taalif Matlabul Fawzayni nekkoon ci maarum xat mm-hmm. ñu suñ borom wan ko dëkk bi ni mu war a mel mm-hmm. nga xam ne ba nëgëni boo jàng Matlabul Fawzayni mm-hmm. da dangay yéeg ne day mel ne nii dëkk bi mel fekk na suñu fàgg ko yàlla def itam nag mu bàyyi fi ay jàmbaar jàmbaar yoo xam ne ndax addoom lu fi sotti rek suñ borom ci loxo doomu aadama loxo jaar la moo tax ki euh, ko jëkk woo tuddee Cheikh Mouhamadou Moustapha mm-hmm. yàlla def bis bi itam mu daa ko def di ko ànd ak njëbooru mm-hmm. taxawal yoon bi itam mm-hmm. loolu xam naa moo ci ak njàmbaaram ak xamam Sëriñ Tuubaa ak ko gëmam Sëriñ Tuubaa ak ko fitam moo tax yoon wi départ ba ak si tey mënoo lépp ndax sëriñ bi moom xam ngeen ne léppam digg ma boroomam la sëñ Tuubaa mës a nos dara mës mhm. a dara sëñ Cheikh bi daan wax ne mës a batale dara mhm. kon Cheikh Mouhamadou Moustapha mhm. eh, indi gi mu indi sëriñ bi rek te ma téeméer loolu képp ma na ñu di fat ñu di ko fàttaliku fàttaliku waale it ba mu ko indi nam jafe woon ndax yéen jànkat yi da ngeen ci delsi ku dem ci archives yi mille neuf cent dix-huit tubaab yi bàyyi woon nañ xel lool ne sëriñ bi bu buñ ko gisatu njaarim dañ koy denc nga gis nga xam ne suñ tubaab kon mm-hmm. ay pexe mënu ci woon dara mm-hmm. ndax loo xam ne tubaab bi def nañ ci ay siif yu bëri bëri mm-hmm. bu ngeen demee deen ko gis am na fépp léegi te gis ngeen tawfeex ji ci suñ borom bi nga xamee ne suñ bi dem nañ ba xam ne war nañ ko indi tubaab Cheikh Mouhamadou Moussa taxaw ci fitam ak ñamaar wu xelam ba indi ko tubaab bi mu ko ndee ci dëkk bi dëkk bi dara niwu fi la tubaab yi doon doon ragal ne mu ñu indee suñ tubaab njaareem noonu lay defit mooy murid ñëpp danañ toxu Touba nekk seen capital mu jëm mm-hmm. ñu fàttalikuwaale raay bi mm-hmm. ba mu koy tàmbale mm-hmm. ndax loolu mooy yoon bi ndax mooy li njëkk def ci yoon ndax jumaa ji raay bi tax mu mën a am condition yi ñu ko ci tegoon ne nañ ko ko may taxañ ko ko fulla jëm ci def yitteem jëm ci def njabootu Sëriñ Tuubaa gi ba taxaw ba tàmbali jumaa ji noo sa njabootu Sëriñ Tuubaa gi noo si teg yoon di ci yoon door fi bàyyi ko bañ ñu ko wutuwaat ginnaaw ginnaaw bi ñëpp tàmbalee ci Cheikh Mamadou Fadel ba ci Cheikh Abdoul Ahad ba ci Cheikh Abdoul Khadir ba ci Serigne Saliou ba ci Cheikh Mahoud Dayin Baara Mbacke ba ci Cheikh Sidi Mokhtar ba ci Cheikh Mahoud Dayin Baara Cheikh Cheikh Mahoud yàlla fi yàgg te ànd ak kenn ku ci ne ñu xool li nga xam ne def nga ko ci yoon loolu ma di fàttali ndax daa tax ñi xamutoon xam dana tax ñi door a jug itam mm-hmm. xam ne yoon wi nii yoon wi mm-hmm. ndax yoon wi kat ba sëñ bi ñu bisee Tuubaa mm-hmm. mosuñoo toog di xaar kenn luñ nekk dañ cee nekk rek ku ñëw fekk si lañ loolu nag yoon wi bu demee ba agsi fii tey ba amee nii doole waruñoo fàtte cosaanu lay yoon wi te mooy xam ne la sëñ Tuubaa digle woon ca bi muy santaane jumaay Tuubaa ne lépp lu ngeen bëggati wala lépp lu ngeen sumbati rawat na lu mel ne néegu yàlla bi na ngeen ci góor la ngeen man ak la ngeen mënut mm-hmm. te ngeen sukkandiku ci seen bopp mm-hmm. te fa ci seen doole yam ngeen dem laxasaay ci eh, an wutu ko ci anam gu sell mm-hmm. te fa ci seen kattan yan yam ngeen toog xaar fa say jàll la ba kon fàttali googu dana ci dana ci baax mooy carrière carrière ndokk yi ñoo xool fañ ko dajale ay kilomètres di ko yanu seen bopp di ko indi te dawuñ ko yëg lépp njàmbaaru murid lay féete mhm. ndax ñu bari dañoo fekk lépp sotti rek te xamuñ histoire mhm. moo tax lii ne kon dañ ci soñ ñëpp mhm. di ci soñ biir réew mi muy dëkk yi ñu ko war a defee mooy Ndakaar googu ñu ko war a ubbee ndax Cheikh Modou Mountakha déggoon naa ci ginnaaw muy wax ne Touba moom mokk na ba noppi liggéey bi ci sow jant la dese kon loolu ci liggéey bi la bokk mooy taal bi yëpp yëg ko ànd ko te xam ne yëf Sëñ Tuubaa la di yëfi Daaru Xudoos waaye yëfi yoonu murid la Louga tam noonu xëy na ñu tànn ko ci reson yi njaareem nag moom daama di fàttali ndax fa la Sëriñ Tuubaa gën a yàgg ci kaw suuf xar baax ju ne mu def ko fa eh, ay jeexee tamit njaareem nga ko fekk muy kër gum dëkk ak jumaa jum tabax kon njaareem tam lu ma di fàttali ba ci foofu ngeen ko daane mooy xutbatu am sasin xutbatu am sasin boobu lu jamono jaxasoo jaxasoo bu ñu ko jàngaatee tom la Sëriñ Tuubaa mujj wax taalibe yi kon doon tàggu ñoom ndax bu noppee la la la joxe ndigal ne mm. waxal suñu affaire ne jiite fere mm. kenn gisatu ko mm. kon loolu itam mën naa fàttali ñëpp xam ko xam ne yow ne suñ Tuubaa noppi na ci noonu ñu koy defee ci biir réew mi itam bitim réew comme baaxoo nañ daa ko fay def ñoom itam ñu gën cee góorgóorlu am na ci ñoo xam ne seen tànk jotiwut fii ndax ñëpp mënuñoo ñëw ñene foofa itam kon ñu def ay waxtaan ak i fàttali ba nit ñi gën a soñ soñwaat gën a farluwaat mm-hmm. gën a xamaat lan mooy nan lañuy jëriñoo ci sëñ bi nan lañuy jëriñoo ci bi nag mm-hmm. mooy wane sëñ bi rek mm-hmm. te sukkandiku ko jëre sëñ bi laa doxoon ne bi ñu def conférence bitim réew ci ko mun leen bu leen sonn ci xam le doomi sëñ Tuubaa fexe bañ xam le sëñ bi rek ndax ko xam sëñ bi ku ku mu gisati nga bokk ci woon daal la fonk waaye ko xamagul sëñ bi nga bëgg ko wan doomam du sotti kon lii itam yéen mhm. màggat gi màggalu Serigne Touba la mhm. euh, Cheikh Mouhamadou Moussa mi mi ko njëkk a woote mhm. ko njëkk a wuutu woote ñu di ko def ba léegi ne kon yoon mudu yëpp la kon ñu ngi ci soñ ñëpp ñu ñaan ñu àgg ca jàmm te dajee cee ngërëmu Serigne Touba mi nga xam moom ngeen moom lañ ci sàkku ñu ñëpp te xam na ko ko sàkku itam danga ko am kon ñu ngi di sant ñu teew ñëpp seen yitteeg seen taxawaay ku ci lañ seq yoo rek jotaay bi mayewu ko ndax ab appel la moo tax mm. waaye kon ñu ñaanal Cheikh Mouhamadou mm. mu yàgg fi loolu te ànd ak mm. ndax moom kat kilifa la goo xam ne kilifa la ndax kilifa goo xam ne dara boppam itteelu ko léppam suñ tubaab léppam yoon bi la di ñaan leen suñu Ahmadou Mokhtar mi nga xam moo fi jëm Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy mu yàgg yiiti yiiti njaboot gi yàgg topp ci ginnaaw suñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu demam nga umpuna mindeef te um na bopp kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne xiim